waaw suñu kàddu mooy sant yàlla euh, bi ñu mayee wér ak wérle bi nga xam te ne bi tax na ñu dox euh, ci biir campagne bi dem nañ fóot ci nekk waxtaan ak ñañ fa mënoon waxtaanal ñu ci yàlla mayoon ci temps euh, tey yàlla may ñu yeew jàmm ak salaam ànd ak sunuy kilifa ànd ak suñuy nawle yi nga xam ne ma lañ bokkal coalition bi voté ni koy ni ñu ko yoon maye ni ñu ko constitution maye voté nañu ci jàmm ak salaam di ñaan yàlla may ñu nii vote bi tàmbali bis bi mu doxé fi ni ba kérok muy jeex ci ak salam xaxar jaru ko fi saga jaru ko fi nañu bayyi citoyen yi nga xamanteni ñoo ñoo yéwo seen kër yi ak li nga xamni mom lañ ñëpp wala mom lañ fas seen xol yi dugg ci urne en toute transparence bu mu am ben ben ben buuxante ci seen demi, yi nañ lan bayyi ñu voter en intime conviction dedet euh li war moy ku euh xam nga nak senegal mo baxo nen ndax xam nañu influence bi am ci biir vote gis nañu ñoo xam ni dañuy voté du ñu génn taxaw parce que seen mbokk wala nangam war nañu wax nit ne ko votel fii kër ci kër si euh, yooyu dafa jaaduwut li am solo ba am solo mooy ku voté li nga mën a def génnal am nañ droit nag taxaw ci biti parce que bokk surveiller vote da cee bokk te surveillance bi yemul ci les autorités administratives parce que influence yi jënd carte taxaw ci buntu kër yi joxe xaalis yooyu ci autour des de vote lay xewee nit ñi war nañ ko surveiller parce ñëpp xam nañ liy xew cest xam ni liy xew Thiès

donc li war mooy bu ñu voté effectivement ñu génn man gis nañ fi ñoo xam ni bokk nekkul ci liste duñu candidat ay supporters ci yeneen liste lañu mais ñu ngi ci biir santé bi taxaw ni ay nee garabu niim donc nañu génn bàyyi nit ñi ñu voté ci seen aqulaahi taala ak li nga xam ne moo leen doy ñun amul dara lu ñuy song ci àdduna di ci am naatafle ñun wax dëgg yàlla euh, du du tey lañuy tàmbali di am confiance ci li ñuy def yàlla def na nag euh, dañ koy def ak maandu ak teey euh, yaakaar naa ni daañu ko def ak yar parce que dañoo ànd ak ay kilifa te kilifa yi ànd ak ñun amuñu droit teg benn jéego bu ñu naan def ngeen njuumte ñi ñuy jàkkaar loolu Augustin Tine man suma nijaay la tëdd liste bi sama nijaay la man moom bu taxee bu laaj leen ko moom dina leen xamal ne moom sama nijaay la donc man duma def loo xam ne lii danaa taxaw sama nijaay di sëgg mukk dama koy jox respect bi ci war bu ngoonee nag ki yàlla bëgg mu dem assemblée nationale nañ ko félicité bu ñu histoire bu ñu saaga bu ñu xeex amul njariñ lii daal mooy cadre di nga xam bëggoon naa ko yëkkati di remercier également toute la presse parce que gis nañu ni ñu taxawee ci affaire bi gis góor góorgóorlu bi ñu def pour yamale euh, dañ leen di